mbokk yi sëriñ Abdul Aziz Diaw di ku ñëpp ràññee ci wàllum ñaan yàlla boroom xaalima gi du laal suuf macha allah laal leen bant xam-xamam ak gëstoom ak ragal yàllaam loolooy li sabab réew mi yépp ak bitim réew jox ko bopp ay li ko wut xam-xam jaral gëstu xam-xam daf koy jaral dem fépp ci biir réew mi ak sax bitim réew daanaa leen wax lii di sedd li saxaar moom gisuma ku ko ci man Serigne Abdoul Aziz Diaw ni ma bu maa ngi feeg mbir mu yéeme sax ah waaw lan la mu ni ma xanaa li ñuy wax xorom si lan mooy njariñu xorom si mu ni ma bépp diggante bu yàqu bépp diggante bu ñagas xanaa dafa fekk amoo ci xorom si waaw secret bu doy waar la ci boole Serigne Abdoul Aziz jaw mooy borom rus na maa xam nit ñu di ko jàpp ci gàllaaj rus na maa xam nit ñi di ko néewal doole ci xam-xam sangatu bayre moom benn la ci Afrique lépp lu jëm ci muslaay kaaraange dawal seeti Serigne Abdoul Aziz Diaw ma nga fële ca Thiès ca quartier ba ñu duppee Serigne Abdoul Aziz Diaw yow mi lijjanti ay kayit mu tëla gàllaaju kër xale bu të ay mbokkam bu lu jëm ci wàllu plante kenn mënu ko ci ci réew mi ndoxum siti góor gu néew kattan hémorroïde jigéen guddul yëg bànneex Serigne Abdoul Aziz Diaw mi ngi ceeg lu yéeme sax yow mi bëgg a jokkoo ak moom 77 571 87 63 wala 78 469 92 92 waxoon naa leen ni leen bu ngeen deeti ñaan yi nit seeni mbir daw leen seeti ku ragal yàlla te am xam-xam Serigne Abdoul Aziz jaw moom ma ci doy su ngeen bëggee dégg dëgg daal Serigne Abdoul Aziz Diaw ku mel ni moom ci Afrique benn la fi. waaye Assane démb ci buntu ministre de la justice defe naa ne fa lañ jaar. Hmm. ministre boobu la di Aïssata Tall Sall daal nee na leeral indi na ay leeral ci li xewoon euh, temps est passé ci IGAS bi nga xam dañ ko yóbboon fële ca Ziguinchor pour mu def kii ba gaa yu bëri naan justice bi li mu def liggéey moo tax ñu bëgg ko indil ay jafe-jafe nee na du loolu. Hmm. comme coow li bari rek moo taxoon ñu dem def seen liggéey def nañ seen liggéey ba pare nag nee na ñoo ngi xaar enquête yi lan lay wane def nañ waaw am na solo bu dee si noonu mu ko waxee moom noonu la léegi ñu ngi toog di xaar rek te mën nañ ko koo nangul bu fekkee kii àtte na ñu ni kii àttekat fee la féete kee la faral ñu am ñoo xamante ni ñoo yore loolu ñu ko demal nga saytu kee ba xam àtte bi da koo teg si yoon wala daa am ko mu faral mu daal dem bu dee loolu la moom amul problème bu dee si côté Ousmane Sonko bu dee seen côté moom ku ñu wax ni moom la faral mu amul problème mën nañoo bàyyi mu sedd mais bu dee si côté Ousmane Sonko moom bu ñu bàyyi dara hmm. bu ñu àttee. ku bokk APR. ñu ni APR la bokk garaawul ñu ne magam si ministre bi la bokk garaawul ñu ni ki àttekat bàjjenu nang garaawul mais bu ñu nee xaw naa bokk ak Sonko nañ dem saytu lu mu bokk ak moom wala daa xaritoog moom wala da ko bëgg. wala nee na comme coow lu bari na moo tax ñuy def. waaw coow bari na fii te dama moo tax man la li li coow bari fii lépp garaawul mën nañ koo seere mais bu dee si côté Sonko li mu def baax na nañ ko saytu waaw. d'accord <coughs> te ñoom des fois nag xam nga gars yi jiñ leen ci réseaux sociaux yi ay ñoom Macky rek la kii waaye gis nga démb bañ jaaree seen buntu ba ñoo ngi fa romb oto yàgg baax ba ci seen buntu mu gaare xam nga buntu ministre de la justice bu fa oto yàgg baax gaaree mm-hmm. ngon dab oto ñu def ci ab photoom mm-hmm. kon mooy liñ toloore bari na moom koñ ba de dañoo appartement la rek bu ñu foofu keneen liyee appartement waaw yow appartement rek appartement rek la de d'accord photo bi yàgg baax lañ ko romb ci buntu ministre de la justice ponkalub camion ñu def ci photo mu mu def nii ñu photo ko mooy gars yi toloore nañ lu bari nag vraiment parce que nag neen ab appartement ngeen luyee moo moom ñoom ko dañ faa luyee keneen luyee fa keneen luyee fa ab koñ la rek ab koñ waaw ministère bu nekk si koñ la ñu luyee ab kër gi mu takk lool non <laughs> non <laughs> nekk première ah non non non ministère la justice dañu waaw luyee ab ab kër la nii rek waaye kër <laughs> saa yi engagé tey de alaaji eh, kon mu mel ni ministre bi leeral na ay Aïssatou daal nee na eh, lu tax yooyu ñu yóbbu fa yooyu yëpp daal ay enquête la yu ñuy mëne rek enquête ba def nañ ko bu pare insha allah xam naa jombul balaa yàgg daañu xam lu taxoon gaañi dem faak lu ñu jëlee ci juge ba nee coow lee bari waaw du loola waaw moo tax ñu yabal fa mhm. ñan ñoo doon coow ah ñi leen di tuumaal ñan lañ tuumaal. naan li tax ñu bëgg faa def ay enquête mooy. déedéet dana coow laa bari. coow la bi moom dana coow laa mooy dañu wax ni. Hmm. kii mbokkum Sonko la ak ca partem la. bokk ak Sambata Ndiaye. réew mi. yow déggoo loolu réew ko wax hmm. ko wax. ku doon coow. léegi lu agent judiciaire de l' état d' espagne moo ko doon. mais réew mi bari nañu ko ak état bi coow li ñoom ñoo doon wax ñoom ñoo wax ñoom ñoo yor coow li di <laughs> nañ noppi buñ noppee kay coow dootu rek. coow li ñoo ma di. voilà day fot wóor yàlla. ah li kan la. ah yow ñoom lu ñuy coowee di. enquête coow li la la. léegi ñoom ñu ñuy coowee di enquête. waa déet ba dañ de xam nga fi mu yóbbu mbir mi quoi. coow lee bari waaw dana bari. waaw waa coow li ku doon coow. réew réew mi réew mi yow yaa doon réew mi. yow yaa moo wax lool réew mi kan moo wax loolu. ah mais mais vraiment nag nag nag réew mi. réew mi noonu bul wax réew mi quand même. léegi ñenn ñoo doon coow. waa ñoom la. ñoom ñoo coow di ñoom ñoo wax ne kii mbokk Sonko la. <laughs> Ah, ñoom ñoo jox ndax lii ak lii dafa am ku mu bokkal ku nekk ca mairie ba du ñoom ñoo ko wax. Mm-hmm. ñan ñoom ñoom waa état. waaw mais du ñoom ñoo coow loolu. mais mais ministre de la justice waxu ko. moom moo tax dama ñoom ñoo mais état bi rek ñoom ñoo coow. léegi coow li bari. waaw juge ba àtte ba pare. ba joxe verdict. waa non seulement jëfee woo verdict bi. waa doxaloo ko. nga yónneewaat fa ay nit. mais waa ba léegi du. ne da ngay dem pour enquête. mais du waa léegi waa. waa léegi tey jii lu ñu mën a enquête. waaw ah. ndax lu leer mën na faa am. lu lu leer. moom lañ ci yaakaar. mën na fa am man moom lañ ci yaakaar. nee nañ enquête bi ñu yóbbu. mais fi ñu ko yóbboo dafa dolliwaat coow li. bu dee da ngay kuy daw coow looy jëlaat aw coow di ci dolli. coow lum dolli. non seulement léegi yemuñu foofu mais coow li demaat na ci ne ne léegi agent di kii ña ngay dem sax di yóbbu juge ba pour napp ko. pour teg ko fitna loolu dégg nga ko kon yow yaa ngi yokk coow li. ok. Hmm? waaw léegi yow jàpp nga ni fi mu toll nii léegi lan moo mën a fay coow li bu dee da bëgg a fay coow li xam nga moo mën a fay coow li. ah nangu dogal. nangu dogal léegi kan moo dogal du justice. waaw léegi moo tax léegi justice. parce que fi mu toll nii coow loolu. léegi justice dañ ko jëlee fële indi ko ndakaaru yokkaat coow li. xam ne li yokkaatee coow li mooy bañ a jox Ousmane Sonko ay parrainage am téye ko siisu. waaw léegi alaaji ba Sénat ne la jox ko ay parrainage am nga lànk ne du joxoo ko ay parrainage am c'est parce que da ngay xaar état war nañoo def ab kii. recours recours. jëmale ca mbir moomu donte defagu ko nga ne waaye mën na koo def. mën na te bu ko defee mën na caa am ndam te bu ca amee ndam nii lay demee kon donc yaa ngi yokk <laughs> coow de dawoo coow. waa léegi moo tax man alaaji bu wax kuy daw. waa déglu ma waa waa déglu ma la wax la rek léegi. léegi justice moom su fekkee ni problème am na ay coow bari donte ne nee nga ñoom ñooy coow mais justice kay coowul <laughs> léegi justice du dem tranché coow bari lay léegi kuy coow xam nga justice ma wax la leen ma wax la leen ma wax leen Aïssata Tall Sall ah. ministère bi mu yor dañ koo néewal doole te ko néewal doole ñan la mooy ay mbokam parce que ab juge mënut a joxe décision de justice nga nekk ministre de la justice waa ñu bañ koo respecté mais moo tax mu yóbbu def ay enquête ñu bañ koo respecté ci penc bi. non non léegi enquête yi kay loolu mën na ko leeral. ba pare doog a def enquête bañ respecté décision ba pare. a def enquête. dañ ko war a respecté ba pare. d'accord c'est que man fii laa gisee nga toog ci garab ñuy dagg balance bi. yow ngay jàppale ñuy dagg balance bi. d'accord balance justice boobu bu xaawi ko yow mi nga xam yaay ministre bi yor kii yow yaa ciy njëkk am ay gaañu gaañu. d'accord donc loolu waruñu koo nangu. justice lépp lu koy dooleel. Aïssata Tall Sall ci la war a xëy ci la war a gont parce que mooy ak yëkkatikoom d'accord